jàpp ci góor jàpp ci yàlla donc dama jógee ci bàyyi wàcce dama jógee ci mag wàccaat ci mag te bu fi jógee noonu laay demee ci sama yeneen frère waaye tey jii lii ku ko seetaan man ñeneen ñi billaahi ku ma ci eggul sa kër sax xam naa ni kontaan na lii rek la Sénégal bëgg lii la àdduna a ñor te soxla boo xam ne am naa ko fi. Mhm. mooy bisimilah. mooy yàlla nga am na. incha allah parce que yaa ma fa jiitu. Mhm. yaa ko fa jiitu ba mhm. mu ko ñaanee rek suñu borom da koy def. te man xam naa yow sa xol li nga am. boo ma ko ñaanalee suñu borom moom moo ko def. Mm. donc yal na la yàlla defal jàmm. yàlla defal xéwal. yàlla gën ñu gën ñu boole. Mm. yàlla gën a boole xol yi. Mm. bis bi nag ñu ànd ci ci jàmm. egg ci jàmm te souligné nga tamit lu am solo. na communauté sénégalaise teel a génn. ma teel a yéeg. teel leen a dëggal. dinaa fa def nag ay morceaux yoo xam ne hommage yoo xam ne. non surprise day doon. di nga am surprise de boy. walaay dugg na. jërëjëf ay invitation la yu bokk. waaw boucher aussi dafay invité ci kii am nu mu tuddati. couverture restaurant boucher nee na moom looloo ko fi indi. Ah, restaurant bi foog nga ñëw. Ah. Ah. sama restaurant mooy ubbi ah non. Boucher wuyu dama dama dama Boucher dama Boucher dama dama. yii c'est la première fois waaw kii kanam Boucher. Boucher ak Ketchup. waaw. Takkusu Waly. Takkusu Waly. Takkusu Waly. non dinaa dinaa dinaa ñëw ci place bi. incha allah. jël benn jour boo xam nga ne. lu fa togg maa ko commandé. loolu mën na yokk loolu amul problème mën na ko. jeex na waaye jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf mais mais Diop. dinañu dinañu dinañu waaw waaw. façon façon le travail. pour travail ko nga nekkaan la ñooy noos ñooy def lépp mais xam nga ni. je suis prisonnier du temps. tout à fait malheureusement. mais bu métti métti rek. xam nga ni yaa am moom dégg laa tudd moom. xaaruñ sax dégg. Ah, waaw yàlla baax. wax dëgg yi wax dëgg yi foofu jëpp lépp lu jëpp. ndax sëñ Mbaye woon am mooy li am boo ko amee am nga solo waaye boo ko amul amoo solo ku wéerul yomb ba ma. teg ci ne am kilifa mooy di déglu ay waxam. soo ko defee am nga xorom boo ko deful amoo xorom te say wax du sa xorom. jërëjëf. mais père père mu kii moo ñu mujjee moo ñu njëkk moo ñu mujjee Makka Diop. parce e moo ñu. waaw waaw waaw. waaw amiin yaa rabbal amiin amiin amiin yaa rabbal xam ko sax amiin jërëjëf jërëjëf billahi wallahi dëgg la waay amiin amiin amiin jërëjëf wallaahi dëgg la lu bari lu ñuy wax di ko soog waaye gëm a kul yàlla barke Seydina sama bopp la gën a ci rek lu baax di ku mu ñaanal jërëjëf. Ndiogu dama bëgg ñu yéene waale ci dama bëgg ñu yéene waale ci jaaga maanaam ku fi toog rek dama bëgg nga a ni yàlla yàlla yokk ay leer. man ma ne lii. lu ma ci yem amul. day dëgg rek. ñaar ñaar a gën a naqaree génn ci nit muy deret ak rombo lan lu may yéem ci ak mbaaxam jëmmam ji amul waa waa li yàlla bu la yàlla la cat seex ci toog hmm. bu doxalee neneen hmm. la ma yéem moom hmm. te fu ma musee xaw a sentir ci ay jiixi jaar loolu moom wala moom yàlla barke Cheikh Raval. bëgg baax taxu la baax. donc tey da nga ci sabab. Mm. waaye yàlla dafa muy baaxal nit jotu ko. jërëjëf. ñoom ñaari jëm yi yëpp dama ko ci waaye kii dama ko kii ma pratiqué ko. ndax kii bi ma koy man mën a gudd lii mu ma kii bi ma koy pratiqué daal dañoo commencé di muy man li man mm. te wolof dañ nit bala ngaa xam lu baax yàlla biñ ko wërsëg. waaw. man dama naan jàkk bi la ma ne je suis très ba muy baax baax lu di di abdu booy lamb loo yor foofu nga génne sa junni ñu jël ko ramassé bu njóobu mbay ramassé bu keneen ah, boobu man dañoo pour single def ko album barke Sëriñ Tuubaa ak ñi may engagement ak jot wax naa ko waxati ko ñu leen ba mu ne ñëw jàkkaarloo ñu jàkkaarloo ma moom mu wax ku ne jaar na wax waaye ba mu waxee jom ak détermination rek ci moom moom politique moom dama xam ne moom du ma neexee kenn jërëjëf la yaakaaruma kenn ku dul yàlla defal lu ma virgule mi ngi ñuy toog. jërëjëf jërëjëf loo xamante ni mën naa ci jàpp naa di naan. jërëjëf jërëjëf. macha waaye nit ku baax. yàlla ko yu baax ci réew mi. yàlla sii di ñuy toog loolu laa gis ci moom mooy discipline yar correct ak ambitieux. soirée ba njëkk a ànd rabais ñu jublu ko fa dem daanaka maa fa nekkoon la doon ak ak Paco ñaari jigéen ñi ma àndaloon damay mais am jom am fu mu teg bëtëb comme ni ñu koy waxee. ma ci wax. di ko seede di ko nangam amul hmm. da koo wone prouver ko prouver ci li ma mën ma mënta wax nag.